Euh, exactement le président Bassirou Diomaye face à la presse nationale ni ki n'a le samedi 13 juillet 2024 nous avons une journée pour cocktail avant 21 h qui n'a xam la euh, coalition mai 2024 dina amoon une rencontre fof ci do li nga que nekk moo euh, maison de la presse je pense bien euh, di nga ko fa daal di amal waxtaan exactement si ponk yi nga xamni tam itam gën na ko daal di way tam réalisation yi nga xamni tam itam Bassirou Diomaye fay def nako si diiru li nga xam que modi justement 100 euh, jours alors le président Bassirou Diomaye dina dal di way ta xibaar yi euh, mu dal ñëw ñun ay yu am de rencontre RTS GFM euh, Sud FM APS di presse sénégalaise ak wa tv mais avant tout d'abord le choix de ces médias ban analyse gis ngeen am na ñoo xam ni peut-être zappé nañ leen si. non non non non sëñ Fallou ngir yàlla bu lu ruubee bu ruubee. déedéet déedéet déedéet déedéet dafa juróon coow Macky Sall presse yu mu tànnoon. Oh. ITV ak Seneweb ak RTS ak Le Soleil. tey aussi tànn nañ yàlla euh, est-ce que tamit lii xalaatoo dina dina dina jur coow. bul bul ngir yàlla bu lu ruubee bu lu ruubee bu lu ruubee affaire yi. ñoom ñoo xam ci yan critère. Hmm. la ñuy jëlee ces médias la man damay yaakaar ni dafa am ci yu critère yu fond yu ñu fondé yi wara tax ñu jël ñu choisir ces médias là mais xëyul ni tëb ni ni ni choisir ces médias là parce que aussi euh, fay am ce qu'on appelle des droits télé même dans les clubs là les championnats là dafa am ay droits télé droits télé da nga koy jënd oui c'est pas comme ça de. non non non da nga may déglu. non non non damay dama lay expliquer waxuma la ni cas bi noonu la. dama né même dans les championnats y dafa am droit télé maintenant bu ñëwee ci la prestation du président de la république Ça n'a rien à voir fait. non non si si hmm. si droit télé dafa am maintenant ñoom ñoo xam ci yan critique non non non non non nekkul média bu ne la invité foofu loolu laay bëgg wax non euh, su euh, un média bu classique ku su groupe de médias un média. un média classique n'est pas dit forcément au président bu il wax yow sa place mu ngi foofu moi titulaire indiscutable. Mm. il y a pas un média titulaire indiscutable président buy il y a des critères de sélection des médias Moi manam yow da nga non média classique la légui mom titulaire indiscutable la président de la République le wootee mom titulaire indiscutable la. non c'est pas comme voilà RTS mën na titulaire indiscutable parce que c'est la télévision nationale mais les autres télé c'est des télé privées que nous soit classique ou pas c'est des télévisions privées zapping non mais c'est bi il faut arrêter ça Moi la mais zapping débat yi dama la télévision nationale la RTS Mon titulaire indiscutable président bu hmm. parce que c'est la télévision nationale mon moo est le comment les droits télé en premier Bala mais les autres c'est des télévisions privées moi il y ci un critère lañuy def sélection pour ces médias là médias yi yëpp mënuñu fa dem sinon lay dem bu média classique yi naree dem site internet yi les médias qui non exemple non da may déglu sëñ bi da may hmm. man je parle je parle à des sénégalais da may déglu. quelque presse ma Je da may dama ces médias classiques-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'appeler tous ces médias-là. Parce que les médias classiques-là, il faut dem. Alors, ah, nous avons dit ces affaires. Parce que CNTV, voilà des médias, médias classiques-là. dafa mais CNTV TV est-ce que du jur les non non non CNTV, TV mën fa dem y a y a même pas de problème. parce que c'est une télévision privée mais elle est là au Sénégal. elle contribue à l'information au Sénégal. C'est ça la, euh, la, ça la réalité. CNTV aujourd'hui, il est dans le département d'information au Sénégal, hmm. que ce soit ITV, que ce soit Lennon ak Mais aussi, il y a un critère de sélection des médias là, parce que les médias, yep nous peuvent day ah, don petit ko. Voilà journalistes yep ne peuvent di poser ay questions. C'est clair, c'est clair. Alors, nous avons directement donc li nga xamné justement euh, si euh, sortie bi. Mhm. bu bonne gouvernance lutte contre la corruption audit yi nga d'autres et d'autres lan ngay concrètement si sortie Bassirou Diomaye Moi Faye. mooy simple je crois il l'ont annoncé sur le conseil des ministres. Hmm. de ce qui va ressembler ci lu muy wax. wax nañ ko ci le conseil des ministres donc man lo lay xaar les questions majeures qui méritent d'être débattues que mon président de la République nous ces questions là Mon sénégalais non il peut mieux faire il est dans ce chemin. Jomay, il peut mieux faire parce que il a une marche de manœuvre non seulement il est un président légitime sénégalais yi bëgg ko bëgg massivement alternance à premier tour c'est la première fois. Mm. il faut ngeen comprendre non, donc c'est un président légitime sénégalais ñoo mobiliser dem voter ko mu au premier tour ñu ont dañu doon deuxième tour parce que aussi c'est normal pour la première fois un président nga sénégalais dañuy xaar au moins nga gagné même bon arrêt, gagné nga gagné au moins deuxième tour mais le cas de Diomaye c'est une exception pour la première fois il a remporté ces élections là au premier tour loolu moy wane ni que la population est avec lui dafa am kay te la population sénégalaise a ñoko voté donc lu ñuy xaar ci pour mu ñëwaat ci les questions majeures là lui sénégalais di xaar mu répondre à ces questions là donc c'est le bilan des 100 jours comment ci la bëgg parce que nous aussi on a des informations ni que dafa bëgg ce bilan là des 100 jours yu mu def à la tête de ce pays maintenant maintenant ci le bilan des 100 jours amna lu lu ñu jotta def. moy hmm. maanaam amna ay produits ñi wañi wañi li wañi la wañi la amna ay mesures ñi jël. Hmm. ci diggante bi suspendre euh, tabax bu ñuy tabax ci littoral bi. nangu donc euh, le spoliation foncière bu ñu def ci mbuurkat feulé ci Thiès def nako voilà les choses yo xamantene lu baax yo xamantene jomay def nako donc loolu yëpp fay ñëwaat ci loolu et aussi moi ci la question de l'immigration donc am message bu muy lancer les jeunes donte Ousmane Sonko wax na ko à Saint-Louis am na message bu mu lancer les jeunes là mais xale yi ñu ngi xaar aussi ci jéemeen président de la République pour mu wax ko. Hmm. publiquement ñu ngi xaar encore ñu ngi koy xaar taw d'abord aussi ci loolu ñu ngi koy xaar aussi ci yeneen aspect Serigne Fallou l'insécurité gis nañu lu xew à Kafountine on a tué treize femmes là ba à Kafountine donc loolu ça devait autre euh, euh, euh, loolu tamit war nañ ci ñëwaat. rassurer les populations. Parce qu'un président de la République, les populations ont besoin d'être rassurées. Que ce soit euh, euh, euh, l'insécurité, mon sécurité, mon installer la sécurité pour que les Sénégalais menent vaquer normal à leurs occupations. Mm. Parce que c'est la mission régalienne. Donc, des corps, des, FDS, c'est ça leur mission régalienne. Mm. C'est aussi la mission régalienne de l'État du Sénégal. Mm. Moi, maintenant sécuriser la population pour nous mener vaquer normalement tranquillement à leurs occupations c'est comme ça loolu faut que mu Nous ci loolu ah bah, ñëwaat aussi sur le bilan wax ci bilan bi aussi wax ci les contrats hmm. parce que wax nañ ko ils ont activé 30 plus de 30 inspecteurs d'État pour ñu dem ci les sociétés là pour ñu inspecter pour ñu xam ñu fi nekkoon ana yan anam lañ doon gérer les biens les derniers publics les biens publics ça aussi faut que mu ñëwaat ci aussi ils ont déclenché un processus Ousmane Sonko wax na ko créé un comité ad hoc pour nous mener vers vers la renégociation des contrats <laughs> lolo aussi président de la République faut que mu ñëwaat ci ainsi de suite un type parmi tant d'autres faut que mu ñëwaat ci donc loolu la sénégalais samedi bu kerogee mu wax ko mais na ko ñu fi ay ay ay ay ay ay ay politique ay buggaan wax ni Diomaye war na ko tontu wala Abdou ki bo Thierno Bocoum wala Thierno Bocoum wax na lii wala non non non non il va sans doute répondre non non waxuma waxuma journaliste fay dem waxuma warul répondre dama ne bu naree répondre bi ak seen position oui oui oui oui oui d'accord oui oui d'accord d'accord bu naree répondre day répondre de manière générale laa bëgg wax mais du répondre parce que diw wax na ma lii voilà loolu loolu laa bëgg a wax foog foog nga xamee ko noonu foofu lay waxee mm. mais dina répondre de manière générale mm. bu fekkee par exemple posé nañu ko une question si wàllum euh, réduction des comptes mais dina ko répondre ana rapport yi ana lan moo yéexal les réformes judiciaires et modernisation lan moko ko ñu installé ko dina répondre tout ah, ça lan t'as tax tey mu jël euh, alors c'est clair Arfan euh, ñu dal di jàll si leneen euh, Arfan à la dernière minute nak tamit ñu né retour de Karim Wade au Sénégal avant